boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV dangeen di bés fu ñu bind abone bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo hamdi wa shukri liman kulli mizan lawri danduna asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëriñ bi ñoo ngi lay nuyu ci turu fédération bu Espagne bi yëpp ci kilifa yi ñu àndal muy liggéey boo ñu joxoon fee ca liggéey boobu bâtiment bu njëkk bu yegg na bañ jébbal nañ ko tey jii sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadir jébbal nañ ko ko waaw kay jërëjëf waaw yëkkat nañ addi yi tamit jébbal na ko jindaa def ñoo ngi koy jébbul ci turu fédération bi yëpp ak sunu siyaare di sant bu baax Mbàkke di la nuyu ci turu waa fédération bi yëpp di la xamal ne ñun day jekk nan lépp loo joxoñ rek ànd nañ cee yow ñoo ngay sant bu baax nañ di ñaan nañu liggéey bii nga xam ne moo ca desaat ndax lu toll si juróom-ñaari liggéey la benn bi rek moo yeggagun nag ñu defal xéewal yoo xam ne balaa dimi na ñu jébbal la liggéey yëpp Mbàkke sant nañ bu baax nag waaw moom waa teel bi nekk Espagne daal xam na ne féete woo nga leen ci waxtu wu ne ak saa su ne kon loolu ñoo la koy fedd. wax ak yéen rek. Eh, gannaaw bi laa gën a gis. alhamdulilah seen taxawaay ak seen. jërëjëf amoon naa ko boobu waaye gannaaw bi laa gën a gis taxawaay bi. ak yitte yi. alhamdulilah bi. waaw loolu xam nañ ko bu baax. kon ñu ngi leen di wétlikoo bu baax di liggéey bi. di leen daal leen xel. leen béggee nag bu baax a baax. gën naa sedd bu baax kon nag liggéey bi ñu ngi des fa soog koo tàmbali fan yii. jox nañ ko sëñ Bas waaw. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf Mbacke kon kàddu yi ñu ko guddal ñu jox sëñ Fallu rek moo tënk waaye ñun ñu lay tuur fédération bi yëpp di gën a sàkku ñaan sant yàlla bu baax nañ ki turu Alaaji Abdou ak mbooleem ñu àndal ñëpp moo Mor Tambédou Alaaji Ali Touré ak ñëpp rek jëwriñ yëpp ngi toog ci gannaaw it ànd ak yow ñun liggéey bi suñu xel dal na bu baax Mbacke. ñoo ngi lay ñaan nga yàgg fi loolu te wér ba liggéey bi ñu ànd ak yow ñu ànd ko ak rek waaw. maa ngi ànd ak yéen maa ngi seen biir. alhamdulilah sëriñ bi nee na mu ngi ci suñu biir kon nag suñu xel gën naa dal kon fédération bu Espagne luñ góorgóorlu doyul sëriñ baa ngi nii nee na mu ngi ci suñu biir waa Espagne ñëpp kon nag sant nañu baax Mbàkke ànd bi yàlla na yàgg yàlla na yàgg barke sëñ Tuubaa bisimilah. lay nuyu ci turu mboolem waa Espagne ci njiital alaaji Abdou Ndiaye sëñ Mor Tambédou jëwriñ sëñ Mbacke Ndiaye waaye ci njiital jëwriñ sëriñ Fallou Cheikh Mamadou Mourtala mi nga xam ne bii ne te jamonoy Cheikh Abdou Lahad ba léegi moog waa Espagne ànd liggéey bi fu ñu toll ñu ñuy soññ di ñu gunge di ñu ñaanal di ñaanal yàlla taxawuñu rusuñu sa jëmm ji yàggal la fi lool ba képp ku mas a liggéeyal Sëriñ Touba nga liggéeyal ko lu ko ëpp te ànd koog ñun ñu ngi ñaanit mboolem taalibe bu nekk wala bitim réew yàlla sunu borom dolli ñu xéewal ak wér ak wërsëg ak taalibe gu ñu nangu saxal ñu ci ndigali Serigne Touba yi ñuy moytu ay tereem ba kenn bu ñu ci gis ñu ngi lay ñaanal liggéey bii nii ko tàmbalee lépp yegg cotle toleet ci sa kanam ñu ànd ko jëwriñ seex Moudou Fadal Cheikh Moudou Basir Cheikh Abdou Khadir ak jëwriñ Sëñ Mbacke Ndiaye Baye Abdou Ndiaye ak mboolem jëwriñ yi Espagne yi ñu nag ci kàddu yi jërëjëf Mbacke alhamdulilah jërëjëf yal na yàlla dolli sutura ak mucc wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi da koo waxoon lii ñu wax nii moo ñu ko wax nan ñu ko wax gannaaw yàlla dogal na wax naa ko nag ni ko sëñ bi bëggee woon ak ni ko waroon a waxee jërëjëf jërëjëf sëñ Fallu jërëjëf Cheikh Modou Mourtala jërëjëf Cheikh Modou Mountakha jërëjëf Khadimul Moustapha jërëjëf Cheikh euh, Seydina Mouhamadou Rasulullah yàgg fi jërëjëf boo leen bëggee am mboolem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo